peñuma saar ñeent ginnaaw loolu ma xool gis bunt ubbiku ci asamaan baat booba ma déggoon muy wax ak man mel ni liit ne ma yéegal fii ma won la li wara a ñëw ginnaaw gi ca saa sa xelum yàlla solu ma noonu ma gis gàngune ca asamaan te am ku ca toog leeraayam mel ni jamaa ak per bu xonq te xon gu leer ni per bu wert wër gàngune ma yeneen ñaar fukki gàngune ak ñeent wër ko te ca kaw gàngune ya ñaar fukki mag ak ñeent toog sol mbubb yu weex ak kaalaay wurus ci seen bopp ay melax ay riir ak ay dënnu di jibe ca gàngune ma ca kanamu ngànguune ma amoon na fa juróom ñaari làmp yu yànj di juróom ñaari xeli yàlla yi amoon na it ca kanamu ngànguune ma lu mel ni géej gu leer ni weer bu set ba mel ni seetu ci li wër ngànguune ma sës rëkk amoon na fa ñeenti mbindeef yu fees ak ay bët ci kanam ak ci ginnaaw mbindeef mu jëkk maa nga meloon ni gaynde ñaareelu mbindeef mel ni yëkk ñetteelu mbindeef yor kanamu nit ñeenteel ba di nuroog jaxaay juy naaw ñeenti mbindeef yi am nañu ku nekk juróom benni laaf te ñu nga fees ak ay bët li leen wër lépp ba ci seen roni laaf guddi ak bëccëg duñu noppeek naan borom bi yàlla aji kàttan ji moo sell sell moom ki nekkoon démb ki nekk tey te di ñëw ëllëg saa su mbindeef ya di màggal ka toog ca gàngune ma tey dund ba faw te di ko kañ ak a gërëm ñaar fukki mag ña ak ñeent di dëpp seen jë ca kanamu ka toog ca kaw ngàngune ma ñu di ko jaamu moom mi dund ba faw di sànni seeni kaalaay ndam ca kanamu ngànguune ma naan yàlla sunu boroom yaa yeyoo ndam taraanga ak kàttan ndaxte yaa sàkk lépp te ci sa coobare lépp nekke te ci lañu leen sàkke